yaa ngi euh, ñu ngi lay nuyu ñu ngi présenté wu. maa ngi leen di fay. ñu baal nga présenté wu nga nuyu mbokk ñuy saar. waaw man maa ngi tudd Marie Silla présidente du mouvement ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr Dakar. Euh, tey jii la moo waraloon tey bi fii. waa convergence des cadres républicains du président Macky Sall de l'APR. président daa di joxe ay directives. valider la candidature de monsieur le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mu nekk suñu coordonnateur au niveau de la CCR. daal di def ay liggéey yoo xam ni kenn dootu ko naa tamit ci biir réew nekk jàmbaar nekk jàmbaar ci liggéey bi jàkku keroog en 2012 di président jëlee raw gàddu gi nekk ci magistrature bi mu daal di stabiliser kudd mu stabiliser enseignement supérieur bi ñu jógee ko fa yóbbu ko ministère du tourisme bi ñu ko yóbbee ministère du tourisme ku ne xam na ni fi jóge woon dañ fi amoon ay programme au niveau de SAPCO et d' autres structures du tourisme ñu yóbbu ko foofu mu daal di koy stabiliser ñu yóbbu ko au niveau du ministère territorial mu stabiliser waa léegi ministère de la santé ak mbas mi fi xew ku ne na ko moom mu nekk ki nga xam moo ko stabiliser ba tey on n'a pas de de de morts. grâce, à son leadership parce qu'il a su prévoir, il a su vraiment relever le défi en mettant tous les moyens de bord. Waa léegi nekk maire aussi de Yoff keroog bi mu demee Yoff gis nga Yoff il y a 10 ans ak Yoff tey ku fa jaar sa xol am na une partie boo xam ne c'est l'État sénégalais mais l'autre partie c'est lui en tant que maire donc ba mu egsee daal di def liggéey bi mucc ay boobu kon tey su ko président validé candidature am daal di ne def moom la bëgg ville de Dakar ñun amatuñu naraw suñu wareef mooy taxawal ànd ak parce que man femme de développement la donc bëri mbootaay ànd ak ay nit depuis des années et des années kon looloo waral ma taxaw takk sama ndigg daal di ñëw jël sama mboolem ànd ko Abdoulaye Diouf Sarr dooleel ko ndax loolu moo ma war ndax man vision de la du président de la république rek moo ma ñor vision aussi Abdoulaye Diouf Sarr ni vraiment c'est l'homme fort et c'est le meilleur choix loolu moo waral rencontre bi est que yaakaaroon ne tey jii dina am euh, Sénégal est-ce que impact xam nga lu tax Sénégal yi kenn motif bi nga xam ne moom la transporteur yi tey je ne l'ignore pas mais c'est un motif assez léger ndax tey wàllum transport su amoon beneen motif ñaar la état di alloué budget par par an dix milliards pratiquement donc tey man je pense que ni transporteurs yi dañu bëgg indi leneen parce que buñ ko politiser ndax ku ne xam na ne état am na wàll bu bëri bu mu réservé au transport. keroog ba ci pandémie bi amee ku nekk xam na ni la nga xam ne moo warul woon ak transporteurs yi defe naa affecté na leen ko kon boobu kon boobu boobu kon ñoom waroon nañu kaas wala waroon nañoo Macky Sall fàtte wuñ leen mais comme waxul woon ne Macky Sall fàtte na leen bu ñu xaa ba tey ñu ñëw di indi di def ay porox ndoolu porox ndoolu yooyu nag état du ko accepté parce que l'état n'accepte pas le chantage sénégal les Sénégalais lambda qui votent savent que ni. Euh, Euh, fi mu nekk nii le président est en de faire un travail remarquable donc du coup on n'a pas besoin vraiment on n'a pas peur yàlla moo fi nekk te nit ñi les voteurs les les électeurs ñu ngi fi di gis xam nañ ni li président Macky Sall liggéey ci réew mi y a d'autres présidents qui qui étaient là mais vraiment émerger Sénégal ak fi mu toll ak wàllu infrastructure ak stabiliser la cohésion sociale ci président Macky Sall mais gis nañ ci biir xam nga fu mu toll nii beneen variant boo xam ne tamit ñëwaat na si réew mi est ce que loolu tamit am beneen impact boo xam ne euh, Abdoulaye Diouf Sarr ba mooy tudd dinañ euh, xelam dina xaw a euh, xaw a fàttali si si si élection yi ñu jëm. diriger cette préfoire loolu je pense que les acteurs de la santé ñu ngi ciy dox di ci liggéey. Moi, je suis pas un, euh, euh, une actrice de la santé. Je ne peux pas parler sur ce sujet. Et que, en tant que ministre de la Santé, en tant que ministre de la Santé, je crois bel et bien que Minti Defouaram est vraiment plus informé que qui que ce soit pour vraiment décider. Moi, je ne peux pas décider à sa place. Il est en train de discuter avec les autorités de la santé pour voir ce qui se passe parce qu'il est bien informé. Merci beaucoup. Je en prie,